tamit ci final bi y a eu des des des ba le président en avait même euh, parlé bi muy euh, sargal gaynde yi euh, c'est maintenant peut-être une question de responsabilité individuelle ku nekk da nga war a xool nooy jubilé c'est vrai nag di nga gis koo xam ni euphorie bi dina ko yóbbaale ba mu def lu mu warul def day ñaan suñu borom daal mu mu yem fi mais comme ni ñuy wax ndam li daal nañu nañu jik te c'est ça le plus important en tout cas Euh, les Lions euh, peuvent aller vers cette Coupe du Monde euh, mais sans complexe. Ah, ah, c'est surtout ça bu ñu demee sans mm, complexe. Mm, mm. xam ne ku ñu mën a tase rek tamit sa mën nañ laa complexe boobu bu ñu ko dindee rek si ñoom. Mm-hmm. je pense que mën nañoo mën nañoo sori te loolu lañ leen di ñaanal. El Hadj Ahmed Aïdara le grand-maire l'éminent par force de Guédiawaye et sans forcer le journaliste ici présent noo <laughs> Birahim aussi moo war di wax ak yow mais bon malheureusement daf la bàyyi nga nekk une fille à papa. déedéet bàyyi ah ban fille à papa. na ah. nga ziar. mu ñëwalee gars yi di ma wax naan ma ay lii alaaj. ah alaaj maa ngi lay ziar. alaaj ci loo ne nag. maa ngi dawal félicitation waay. félicitation ah, waaw waaw dégg nañ ko démb de. macha allah waaw ah, lii day Qatar la grand-mère ah. Qatar i kay am na gan. <laughs> waaw noonu la. waaw waa Qatar doomu kat Sénégal yi nekk Qatar tamit am na ñu ay gan. am na ñu ay gan waaw. <laughs> waaw voilà Karim Wade moo ñuy teeru foofu. enfin on espère. <laughs> dëgg. Ablaye Wade dem ca Karim Wade stade Ablaye Wade la ñu gañee kay dem Qatar. doo ma ñuy teeru war nañoo mën a teeru. c'est normal. super man de dugguma fa man. yaa si loo ne. man maa ngi nii kontaan rek. Eh, ba yaa ngi waaj Qatar. am mbégte danaa ca dem moom bii moom xaw ma kan moo ci dem waaye bii moom. Ah. Ah, man sekk de danaa ci dem bu soobee yàlla. moom demoon naa Russie. non dañuy dem ah demoon naa Russie comme demoon na ma nag yow foofu. waaw ala demoon na. xam na xeeb nga ma de. bu demee marché ba de laa ñoom ñu. Birame moo leen jënd billet. moo leen jënd billet yi <laughs> paase. ne dem naa ca rek. <laughs> waaw dem naa ca daal seen billet wax Yacine Qatar. seetaan naa seen billet. waaw dañ ma waaw monsieur le maire lan lay wax. Kataar demul Kataar mais yow léegi daal en classe daal yow da ngay wax quoi. Ah non nee na <laughs> da koy tuumaale actuellement ah. dama ne ko ni mu. ah léegi daal waa. nu mu tudd waaw waaw mais na mu tijji muy. mais yow joxuma la parole ngay wax. mariage mu jëndee ko suñuy billet. boo lafloo. laalaay safaar bi may laaj. fu ñu jëndee écharpe bi c'est pour faire la publicité fédération sénégalaise de Euh, ñoo koy jaay de même que les maillots. Euh, est-ce que may ñu la ko nag yow oui. boo ko bëggee muy ci échappe yi. ñaar lay jar fédération sénégalaise. ñaar lay jar kese. Euh, foofu échappe mm, bi 5000 francs. s'il vous plaît. 10 heures ba tey yéen a ngi wax. maa ngi jégalu 10 000 rek ngeen ma may. maa ngi jégalu maa ngi jégalu objectif bi demi-finale la ak finale. incha allah. ñam nañ quart de finale ba pare soxlaa <clears throat> jël coupe bi sax la ñu bëgg dëgg loolu dëgg mm-hmm. demi finale finale jël coupe ñett yi moo fi ne mm-hmm. moom fi mu ne nii moom boo bëggee dégg dëgg dinañ sonn ci <laughs> quart de finale jéeg ah. kaaroo yàlla terminé yéene ñëw ñi ci Sénégal moo gagné Égypte tiro bi li booy daan série pénal mm-hmm. série pénal voilà gis nga Aliou Cissé nee na te dana fi gën a neex de ah oui xale yi seen tànk itam dana fi gën a fees nous serons encore meilleurs et plus forts mais gis nga Mohamed Salah ak waa Égypte démb jahanama enfer lañ leen dundaloo ci biir estatu Ablaye Wade. waaw loolu baax. lii mooy dëgg. lan laa doon wax yow alaaji. Ah. waaw coupe du monde soixante dix waaw entre l' Argentine et les pays nii lay demee. góor na génn ci estade dañ koy tere nag. waaw mais ñoom ñoo organisé coupe du monde. Mm-hmm. dañ ne coupe bi du fi génn. dañ koo gagné soixante dix huit gagné ko quatre vingt six ak Diego Armando Maradona lii muy dëgg. <laughs> naar yi boo fa demee danañ la taajal xam nga Égypte bi ñu footballé final Égypte boobu da ngay xam ne kii Sénégal la ko mën. Mm-hmm. quatre-vingt-dix domination. mais keer barki démb. mais da naat ñaari équipe yi est ce que ñoo daje final. Mm. mais parce que jaanama gi ñuy teg sa kaw. buñ leen ko tegaloon démb nga xam. musiba am dégg mm-hmm. Carlos Queiroz mii nga xam ne moom mooy entraîneur u mujj naa wéer ngaa naa yi léegi nag. Mm. am nañu ñett Afrique blanche ah, ñaar. ak ak ak ak ak ak ak ñett euh, Ghana Sénégal Tunisie Cameroun ak Maroc. Hmm. ñii ñoo ñu fay toogal nag alaaji dégg. waaw 24 heures yéene kaay nañu lañ leen doon doyee lañ def. mission accomplie. dégg nga loolu. mission dóor dóoraat kay waaw dañ leen a dóor dóoraat leen dóor dóoraat la. record yéene kaay ñëw ak tey des journaux sport yi ñu tudd waaw kay pharaon yi xam nga Égypte. Égypte ñoo ñu yàgg sonal. Mhm. <laughs> non Égypte seen mayo yi laa ragal man seen rouge noir yi alaaj Égypte <laughs> dañoo dóor a dóor a dóor a dóor boo ci génnee 86 koo nga xam ne ñun ci mag ñi lañ ko déggee. bitu cërno yu <laughs> man bitu cërno yu waaw man 88 euro 88 su ma juumalee URSS 88 alaaj man ci laa commencé di seetaan di fàttaliku ko coupe d'Europe nii Pays-Bas di ko jël. ñoom Firam. nii ñi nii. <coughs> yàlla xam na ñu dippee leen ñoom firaaw ne les pharaons direct ñu sew ak ñun ci benn askan la booloo <coughs> autour de l' essentiel. Mm. Barthélemy war nañ koo fay de dégg nga loolu alaaj mm. coupe du monde bi troisième fois ngi nii yàlla yàlla xeeb dolli. Mm. l' observateur ñëw ak ci mieux vaut Qatar que jamais. ñàkkoon dem la mu wóor. ah non non non Qatar nu ñu fa mën a demee baax na. <laughs> Qatar nu ñu fa mën a demee baax na. dégg nga loolu alaaj <laughs> nañ bàyyi bi daay ba ci lavago bi dagal noo ko defee dagal. <laughs> ba ci. voilà ba ci séeréer bi daal ci dagal. ala kulli haal ala kulli haal dayib soose. nañ bàyyi bi daay. way foo ko defee baax na noo ko defee tam baax na. tool bi sa tool la. ala kulli haal waaw nu la neex bayel mi ngi nii. Qatar moom mun mais depuis Alaaji tu ne peux pas être le roi. ah. quand même nekk buur ba pare. mais saa waay. doo dem yi di dem. Ah, loolu yàlla yàlla sax ci boppam sa xanaa moo doon suturaal ñu dem mais ndi Koulibaly le les trois fantastiques waa ji même bu dee raté na tamit waa ji kilifa la. Hmm. c'est cadre. kan la Koulibaly. ah oui ah, kilifa. walaay dem ay jours yoo xam ne ay cadre la. la waaw. le Koulibaly c'est un cadre. incarné. oui comme Eric Cantona. dafa am ay ay ay ay ay non cadre la cadre la cadre la Idrissa nag moom jëlaat na parti bi. dinaa mbetteel meeg ndetteelu ga ca Thiès. Mburoog Sow mi nga xam ne yaakaar gee mujj tas Idi ci boppam moo jëlaat réew mi di partem ci boppam ni ko ciix téyel ko boppam dégg nga loolu laa séenikaay ñëw ak ñun ci ak bikum fii Katari. <laughs> ax lan wa sax lan la gars yi doon wax de. bienvenue alaaji mais journal bi nee na ax lan bi comme fi Qatar. Ah, yaas lu muy ree mel ni ku dégg arab bienvenue au Qatar. <laughs> dem nañ tam. ñoo cay dem ak lan bi comme fi Qatar ah. ñoo cay dem waaw waaw barki rasulilah jamonoy nawetaan bu la gars yi mënee ba temps bi des. ba temps bi des ay deux minutes. ñu naan la ñoo cay dem. ñoo cay dem gars yi mais. égyptiens yi ñoo ñii ñii ñoo ñii ñoo ñoo ñoo gàtt xel nag. waaw yow ñii ñii yàlla mënu seetaan yéen ñi sax. moo tax xoolal fu ñu ratee ñoom it ñu ñëw rate. yàlla ne leen tànk yéen a ngi rate. tànk Sénégal a ngi rate yéen a ngeen di rate. parce que ñun ñoo leen di ko dund. seen ah. naa foofu kàddu Matar Ba dafa wax noonu. non Matar baa ngi nii. non non non dafa ne dina def parcours bu baax ca Qatar. dëggantaan waaw loolu laa parce que bële dañoo ubbee door France. Hmm. dëgg loolu de. match nul ak Danemark. Hmm. match nul ak Uruguay. Hmm. dem huitième de finale. door door seet dem quart de finale. Turquie éliminé Erdogan. Dabala. waaye bii nag bii bii coupe du monde bii Macky bii dañoo door Pologne. nel benn. benn match nul ak Japon. ñaar Colombie éliminé. Hmm. ñoom Rodriguez. Hmm. Ah. ñu toog premier tour. problème mu carton yi ñoo posé foofu ñin dañoo niil ak Japon Japon gagné kee calcul ba ba match bi jeexee ñu ne ñu ñibbi leen waaw. ay xale ngeen. Ah, ay xale ngeen dem ne ñu ne Allé Moussa. <laughs> Maodo Mouhamed Ndiaye nee daa dugal carte gabam bi ne nii dugal dugal ndeke lekk na découvert am ne nii ne nii carte bi ne ko cëkk Allé Moussa. <laughs> voilà dégg waaw. découvert boo ko lekkee ba dara nekkatu fa ba bu ñu dugalee sa salaire sax mu ne ciix loolu la ñuy dund ñun ñëpp. <laughs> Allé Moussa la ko la ko gab bi wax. ma ne ko kon dee dee mu ne ma billaay. saa yi monsieur le taay dama wow ma ne ko déet waay mu ne ma waay banque bi daal maa ñëw ne nii gars yi fekk sama bi gars yi dama lekk salaire dugg mu ne xuuf ñëw dugg ne nii di espérer ne nii ne nii ma kii kii ma ne i mu ma allez Moussa <laughs> woy <laughs> dafay bëri de allez vous en ak fee prix <laughs> non mais nit ñi léegi lépp rek. alaaj ah mais bi lépp découvert di nga jël cinquante mille jëlaat soixante quinze mille. <laughs> te li ci doy waar mooy salaire bi bu duggee banque bi balaa lijjanti dara lépp loo fa am tépit à la source. nga dugal ni nii mu ne la cig cig mu ne la teet na bi mu ne teet la xoolaat gab bi. fin bi de rës ndekete. non non gros mot jëlal yaas yow jëlal yaas. lu mu wax mu ne ko. mu ne ko mu ne teet la rek xam na lii nar sa jur jàmm. bindal ko ne ko. mais mais mais mais mais loo gisee Sadio Madio démb Sadio Madio. ndaanaan la. ndaanaan la de. waaw. il faut mieux faire nag. bitu bitu bitu bitu dugub baax dee lay jël. waaw fekk la nag wuu. dugal baax dee rek. da koo xëddee. moom kay démb moom. moom kay nee na sala aleykum salaam. bi mu arrière rek ba ne nii gisoo ko xool na arbitre bi pour ko baasi ci la affaire bi ne teet teet salaat bi mu ko xatee la ne ko Aliou Moussa dégg déggal déggal récupérateur moom yenoon ndam la bu yàgg. monsieur le président. jël na ko koy moom kay yenu na ndam lii daw ak moom. am na am na la ñu démb de ni ñu ko waxee. jaawale ak Algérie. ñàkk conseil kii du de dafa kontaan bi laay ndeysaan du déglu benn conseil. Eh, loolu lépp preuve la ci suñu diggante ak Algérie ak suñu ndam ma ne ko Égypte la. en tant que njiitum réew. dimbali leen ñu. kay moom APR la moom moom lu neex Macky rek. le temps mooy yéen a kaay ñëw ak ak lan bi kum dee de <laughs> Qatar nous voilà de nga loolu yow. <laughs> waa non El Hadj El Hadj temps bi jeex na de. huit heures pile. non non Sud jeex na. non ñu seetaan yi lañ bëgg a seetaan. ah ba ba ma xale yeneen deux minutes. ah. mën naa suba da ngay inspiré gars yi gars yi la ñu xool nee na démb bi El Hadj. Mm-hmm. ay guerrier dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg et dugg rek raw ki ñoom kay dañ koo alee dëgg dëgg dëgg dëgg sax yàlla <laughs> dégg gis nga la légende continue moom fi taxaw mu match amicaux yi yëpp nañ gañ laa jaw nee kuy gañe coupe doo am defet ay non suñ troisième match fekk nañu qualifié ba pare non lii sarax bi la sëriñ bi moo ne woon toj da du dëkk amul moom daal kuy jël coupe alaaji da ngay dóor ñëpp ah ba pare match amicaux itam nañu wax ak waa fédération wax ak ñoom Matar Ba mm-hmm. Côte d'Ivoire rek doon football barki Dembo Ndiaye ak France mm-hmm. semaine FIFA ba le baax Afrique du Sud da nga doon football démb ak ak France même bu dee dañ leen di tas mm-hmm. suñu match ba ak Brésil nañ ko indiwaat la les latinos là. Mm, waaw américain Amérique du ay ay ak ay Bolivie ak ak ak ak ñoom Argentine. ñooñu dañuy sonal de. ñooñu dañu mën a football. yaa ngi ko Uruguay. dañu mën a <laughs> nii dee la def dugal na waaw. naa xoolal Maodo Mouhamed Ndiaye RFM naan day jéem a. naan day jéem a ba dugg na nii. mais bi affaire bi ñu ne nii la def. dëgg la. allez man moom. retire ta carte et allez Moussa. retire ta carte et allez Moussa. yàlla baax merci beaucoup El Hadj Ahmed Aidara Mamadou Fofana ba suba ak jàmm incha allah ñu jàll si ñu jàll si xibaar yi ànd seeg Hadj Mansour bi lañ jaaji Touré ak moom Mbaye Ndiaye léegi-léegi incha allah. asalaamaaleykum Sénégal qualifié na coupe du monde bi am ci Qatar 2022 démb la gagné Égypte mu demee na final bu demee woon ci ay tiro bi yu neex lool nañ ci dellu soit faram fàcce koog Baye Mante Mboup des na wax itam ci topp atte ba ca Bofa Bayot ca ñu fa boomoon atum 2018 kii yor mission ci biir MFDC nangu na ak bokkam ci biir MFDC waaye bokkul ci boom gi ñu boom fukki nit ak ñeenti foofee ca Bofa Bayot Omar Ampane Badji dañ ci dellu soit ak Abdourahmane Diallo. ndaje bi doon dox ci diggante Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ak euh, syndicat bi nga xam ni mooy F2S mu jur sotti nee nañu ceeg njaal benn euh, coordonnateur syndicat ba daa yëkkati kàddu yi tegg néewul jëmale ko ci kaw ministre bi te négociation loola lalu ko sport nañ ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen a kaay rajo Ahmed Aïdara Faram Fàcce gi Mame Mbaye Ndiaye. Fatali Cissé ba ci kanam aywa maam. après ñu dem xooli carte d'identité bi. waaw ñu dem xooli. du mën na mën na bañ a bind ale visa. mais ah, man moom du yem ci ale ale visa baa toppal baa toppal fële. toppal fële. ayca <laughs> Yacine kon nag waxtaan bi dañu koy dooraate Cheikh Birahim député du peuple El Hadj Mouhamadou Mansour Diop El Hadj Demba am nañu ndama mm-hmm. ci kanam nag Égypte kon nag suñu yoon leer na ca Qatar mu mel ni suñu gayndee démb tiro bu la mujjee jël ndam li wane détermination engagement ba am nag sunu euh, ticket El Hadj ko doon junj sànq mu mel nag du sens kon mérite la. mérite la ñu ngi ñaan yàlla dem bi Qatar doon lu yomb comme ni euh, CAN bi yombe woon parce que itam CAN bi parcours bu am solo la def te nag am nañu équipe boo xamante ni bii ak kilifa yu leen di encadré méngoog infrastructure bu bees ñu dalloo CAN yàlla buñ ñu dogalee dogaale bu ñu ca dogaalewul daal daañu marqué suñu tour incha allah ci histoire football ci atum 2022 maam. mu ngoog mérite la waaye dafa kon yàlla football ji dafa ndax ñun de waaw loolu moom am na euh, te li ma doon wax sànq mooy nii euh, ce sont des lions jàpp ni euh, ku ñu jàkkaar lool ci wàllu football ñoo la mën ba pare mu am ci benn accompagnement bu extraordinaire muy bu public bi kenn du ne nii naar bi kenn fayu ko xoromam bi yaakaar naa ni naar bi fay nañ ko xoromam sur tous les plans ndax am na ku ma doon tooñ démb